solution ñoo leen di may seen émission Taku Show téléspectateurs yi Walfadjri ak seen site bi di Walfnet ak différentes plateformes groupe Walfadjri dellu siwaat nañ ci kàttanu yàlla ci seen télévision Walfadjri la voix des sans voix fas yéene ànd ak yéen ci seen magazine bi di Taku Show Taku Show nag tey ci alxames ji yéen ñu ko gën a miin yéen ñu ko gën a tàmm ñu ubbee seen rubrique kaddu mag ñi kaddu mag ñi nag Omar Bun Xataab Gueye eh, ak la muy indi tey bu nu ca noppee jàll ca pajum cosaan Alaaji Saa Njoogu Mbeng seq waxtaan ak Cheikh Baara Ndiaye borom def gis Euh, victime du net son bu Diop mooy ki koy amal ñu ndar bi la jotaay. Omar Bun Xataab Gueye maa ngi lay nuyu di la ziar. bu baax ajaratu di la nuyu bu baax. di am mbégte teewaat fi ci ndimbalu suñu ak kattanam. yaa yaa Seyda. <laughs> yaay Seyda la quoi. <laughs> Seyda Béti El Hadj Diogo Mbengue Sarr yow tey ñu ngi lay nuyu bu baax taalibe sëñ Sidi bu sëriñ Abdoulahat Mbacke ah ndax Oustaz Sarr ñu ngi koy nuyu bu baax <laughs> ñu ko nuyu di nuyu maa jigéen bu baax a baax di ko ziar moom tamit macha allah di ko nuyu bu baax di nuyu Cheikh Bara Ndiaye borom def gis ah di ko ziar bu baax euh, Cheikh Bara sama xarit Cheikh Bara bi ci campagne bi mu mi ci tengaade tengaade bi tamit di ko nuyu di nuyu baax euh, waa këram ñëpp di nuyu ñoom euh, kat yi mbay mbay ak ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di nuyu seen seede tey bu ñaas ñoom seex Sambaka di leen nuyu waa waaye Kër Masaar ak yëpp di leen ziar bu baax di ziar ñëpp ci koor gi kon niñ ko waxee rek Euh, Kocc Barma tey li ñuy indi. Kocc Barma Kocc ay kàddoom moom mënoo ko am fotom sax yombul. waaw waaye am na ab nataalam goo xam ne. Hmm. gars yi ñu ngi koy ñu ngi koy tasaare bu dee ni nataal boobu mu ngi fi rek ñu teg ko mu ñëw nag ci contexte boo xam ne dañuy faral di wax leen. Hmm. waaw man nag lu lëj sama bopp bi la bëgg naa nag nit ñi. monsieur Baar du ñàkk moom a gën a dégg wolof wala saa wala maa jigéen wala yéen mooy buur du mbokk hmm. te ñëpp buñ jaaxle uti buur te ñi ñi yaakaar ni sax diw dina doon buur ñoom ñi ngi jege ji buur <laughs> maanaam ki ñu gën a yaakaar ne sax moom mën na gañe ñëpp a ngi koy dem jege ji ci koo waxal mun la buur du mbokk léegi nag kàddu googu na lañ koy firee te ko ci barma ñu fàttali ko ci moom di ñeenti jubbu ya bu ne ak nu mu ko tuddee ñun boobu nag lañ ci tànn mooy buur du mbokk parce que danoo toll ci jamono uti nguur te ñëpp jubali buur te koo ci waxal la buur du mbokk. kon ñeent bi am na solo de. waaw kon ko définir am na solo kon ci kanam naa di nga ci mos a dellu si. Mm-hmm. ma jigéen Diop Dieg Sala maa ngi lay nuyu di la ziar. ma euh, Mamadou Moustapha <laughs> maa ngi lay fay ajaratu di la ziar bu baax a baax te lay ñaanal nag jàmm ju sax euh, dàkk di fay Omar nuyoo di ko ziar di nuyu euh, Sa Ndiogou Meng.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 dans l'arène la xeex amul voilà walaay xeex amul voilà tey moom maa ko wax. macha allah ñu ngi lay ñu ngi lay fay di la ñaanal jàmm di am mbégte ak kontaante ci yow. Mm. dem ba Touba Mbacke nuyu xalif général des Mourides sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi tànd ak wér. waaye di nuyu di ziar sunu sëriñ sunu xarit. sëriñ siidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacke ñu koy ñaanal Mbacke mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ziar bu wér nuyu bu baax sëriñ xaadim ne ca kër ga di nuy njaboot ga yëpp di leen ñaanal jàmm nuyu nañ sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimul Axla nuyu kilifa diine yi yeewoo ci biir réew mi yëpp ñu ngi nuyu mama Diayna ba Fall kooku sunu maman la waaye di nuyu monsieur Lo kooku sunu tonton la ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm. di nuyu bu baax a baax ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi kii démb nag euh, dama amoon euh, sama euh, ñilaan la nijaayam gaañu sama goro waaw macha allah falaa nekkoon démb mhm. falaa nekkoon moo tax ñu ngi nuyu ñëpp waaw di nuyu bu baax nag Omar bun Xataab macha allah di am ci moom mbégte kontaan te jël na bang bi def ko bangu comédien yi ne na bi mooy bangu comédien yi xam nga loolu <coughs> dégg nga ko macha allah Cheikh Baara nag lii mu def nii maanaam non seulement lii mooy yàq compétition maanaam lii li Ahmed waxoon ne day yàq wat bi fi mu toll nii sañse la bëgg a yàq daw na génn waaw gis nga ko ni mu dawee génn nii nag ba noppi bëgg a détruire sañse lii xam nga jaaduwut waaw xam nga lii mu sol nii kenn xamut lu mu. pourtant nag caw li la sol. ah caw li. waaw caw la sol sama papa amoon xam nga nag dama bëgg lu aare. mais lii mu sol man man yooyu <laughs> mu sol nii vraiment. yaa ngi jéem a yàq sañse waaye sañse moom mënoo ko yàq fekk maa ngi fi rek zincarne la sañse mais ça li mu sol rafet na de. waaw mais dafa original rafet rafet kañ am na waaye lii wax dëgg fa yàlla dafa am fu mu rafet. te dafa mari couleur. ci mu koy masaw. li mu nekk lii nga xamante ni moom la sañ sañ mais li mu nekk ci jamono ji waaw li mu ci jamono ji mooy la. tey moom sooy bu nekk. alors euh, di nuyu di nuyu ma jigéen macha allah si xabaar kañ démb kay solution ko couvrir xam naa ko kon kay xam nga ni. kon kay xam nga ni xam naa ni. mi ngi ci eh, mi ngi ci campagne. soo baaroo solom sax communication man communication. sol bi rek communication la tey moytu caay yi muy demee ci eh, ci campagne bi. caaya caaya démb caaya ji la wok di wëndeelu. Eh, waaw ba noppi mel ko mbëru làmb naan nii. yaa di caaya <laughs> léegi nuyoo nga ba pare nuyoo naa ba pare Adja. <laughs> Omar tontu nga ba pare léegi may leen ko mu nuyoo. Cheikh Bara maa ngi lay nuyu di la ziar bi ci tengaado beeg cawlu bi li nga solo ànd. maa ngi lay fay Adja Biti di nuyu bu baax euh, sëñ Abdou Khadir Ndiaye xalifa sëñ Daaru Assane di nuyu sëriñ euh, Ngunda Ndiaye mu sëñ Ousmane di nuyu sëñ Ibra Jëmm li porte parole ko Daaru Assane. di nuyu sëñ Mbàkke Mariamu sëñ Cheikh Irada di nuyu sëriñ Baara Ndiaye xalifa sëñ Masamba Ummi di sama mag di sama xalifa bopp sëñ Muntaxa Ndiaye sëñ Bas sëñ mbakke Ndiaye mu sëñ Dam Xari ak ñëpp maa leen di nuyu sëñ Mba sëñ Cheikh Mbàkke Ndiaye Samsul Bilaat sëñ Jiili euh, mu sëñ Ngunda ak sëñ Cheikh Ndiaye njare njare ak euh, Baye Gora Bind di wax nag maa ngi nuyu son bu jóg xaw ma fu mu mën a nekk. mu ngi jërëjëf di la dégg. waaye ma ngay fa fa mu nekk fa fu mu mën a nekk rek sañse na. son yi bu tey daa génn daa génn réew bi de. fu mu mën a nekk sañse na. tey a de. Euh, daa yeewu naan ma ah tey ko da woor de <laughs> waxalu la leer. la dara leeru la da eh, ngaa woor. waaw neel astafurla. kat yi lim la wax gis na ko. te xamoon naa ne doon sañse bi xoolal bi ma ko gisee nii mu toog ci solution bi. Eh. defoon naa ne dafa sañse mais caraam bi daa cëkk daa matalut daa mat luy mini garaam bu kii ñi maanaam garaam bu bi moo matut ah tissu bee matul ah, mini garaam bu yow lii ci ci yel yi la yem ni oom yi bi modèle la lii daanaka moo li modèle la xoolal la garaam bu sa saa njogu bi moo ko survêtement ñoo yem <laughs> survêtement di yem la yem as cëkk tus garaam bu la so saa bul jóg dakaan dakaan neex a yëkkati <laughs> yëkkatil taabal ji kay boo ma ne saa xam. rafet la def. matut mini grand bu la ah. toogal. macha allah cëkk la def cëkk la dimbali ma ah. fii la grand tailleur fi jaar xaadim. da cëkkale. ah <laughs> grand bu cëkk. mi ngi naa Omar Gueye bu xataab. wéet nga ci. di nuyu euh, ma jigéen Diop. Mm-hmm. di nuyu Adja Biti. di mm-hmm. nuyu képp ku ñuy seetaan. ñu baax a baax. ñu dem régie jëli kàddu mag ñi. Omar kàddu gaa nga toog mu ngi ci machine am toog tey toog moom dafa occupé maa koy défendre fii <laughs> di ko jaar bu baax waaw kon euh, ñu ñëw ci kàddu yi Kocc Barma mhm. xam ne contexte bi da koy maye mhm. waaw man des fois bu dara xewee rek sama xel da am ci lu muy dem ma gis mag ak Amadou baax daal fi ñu jaar yëpp mu dem ba ni ci tudd genn naqadi gi après yow da ngay poser question nga ne ak ah, kàddu yi Kocc Barma ba mi ngi nii naka de buur du mbokk loolu tax nag tey ñu indi kàddu yi Kocc Barma mais buur du mbokk boobu tamit nga koy firee nii bari na ñu bëgg a dem jege ji buur te Kocc waxal mënu la buur du mbokk lan moo xew wala tamit ñin yaakaar ne dañuy doon buur sax ñëpp a ngi leen di jege ji parce que boo xoolee coalition Diomaye ak yooyu léegi nag buur du mbokk boobu Cheikh Bara yow nan la nan nga koy firee baat boobu noonu nit ñi da koy wax rek mais man firi gi laa ku ma ko lu waral ñu naan buur du mbokk ak lan la lan la buur taq ba na du mbokk waaw alaaji saa euh, maanaam ala kii nu mu tuddati Cheikh euh, Omar Gueye bun Xataab léegi loolu dañuy njëkk a wax lan mooy buur d'abord bu dee kàddu yooyu biñ koy wax booba buur du woon ay nguuru république bi comme président président sax du buur waaye ñun ñoo ko ñoom mii noon buur parce que dafa fekk ne daanaka ay ñeenti téeméeri at ci ginnaaw euh, buur lañ amoon ay buur dëkk bu nekk day am buuram léegi nag bi ñëwee président dafa nuroog ñooña aw doxalin mooy yilif nit ñi léegi nag ñi daal di koy jël di ko tuddewaat buur waaye buur moom ak lii di dox nii bokkut léegi buur yooyu nag dafa nekkoon loo xam ne léeg-léeg euh, day nekk loo xam ne ku mel ne tey par exemple euh, ma koddu baayu birima la waaye birima néegum ndeyam ci la jaar fay faju euh, falu bi mu fi jógee maanaam baayam dond ko comprendre nga la xam nga kon bu doon logique danga naan baay mooy de jox doom ji mais doom ji ci yaayam la jaare falu baay bi nag bi mu ñëwee nekkub géej doo ko falu buur da nga daa gis mag ak rakk ju xëccoo nguur ba am ci problème rayante nga gis mm, baay ak doom wala nit ak nit ak baayam wala nit ak doomam sax xëccoo nguur gi ku mel ne ngoon Ngoone Latiir euh, doon na bëgg a falu Demba Sukka doon na jéem a falu ca Kajoor waaye Demba War dafa lànk daan ne moom nanguwut ñu jël jigéen def ko muy buurub kajoor ñu ne ana ana ana ana dammeel bi ñu ne ma ngay léttu ci lañ xëccoo bañ jox ko euh, Lat Joor nga xam ne mooy première dammeel bu sant Jóob ku mel ne Yaasin buubu tamit euh, nekkoon na ci biir xeex bi di xeex nekkoon jigéen mënoon a falu ak yooyu day gudd boo demee euh, euh, maanaam barak bu waalo moom da ngay fekk mu nekk euh, jigéen njëmbat mbóoj ak ngata yàlla ñooña seen histoire yaakaar naa kenn du ko fàtte ci réew mi mais noonu la demee woon nag dafa am foo xam ne nii nit ki ak baayam danañ xëccoo nguur gi nit ak ndeyam di xëccoo nguur nit ak jarbaatam di ko xëccoo suñ ci duggoon ci histoire day nekk lu baree baree bari loo xam ne dañ ko mën a teg loxo léegi nag bu nguur gi nag comme comme comme dafa nguur gi dafa fiir soo ko yoree maanaam nit ki du ne day nekk na sarak la rek maanaam wet gum jaar sàkk ci nguur gi dafa am limite yoo koy tegal ndax dangay xam ne mën naa doon sa adversaire suba dégg nga loolu moo tax ñu wolof yi ah, euh, kii wax ne buur du mbokk bu dee moom nag dafa bu dafa jamonoonte woon ak ab dammeel boo xam ne dafa soxoroon mu dem euh, muy muy muy muy nu mu tuddati moomu euh, Kocc Barma léegi nag bi mu soxoree daan aaye waa Kajoor lu ne yooyu itam bokkoon na ci buur du mbokk ndax buur day mën a na ñàkk ba maanaam keneen ne fi nga ànd ak moom xeexle ko mu jékki-jékki falu rek du mooyu la parce que day bay bay protéger nguuram foofu lañ koy doon jëlee ne buur moom du mbokk bu nekkee buur moom jàppal ne du sa mbokk rek buur la rek boo xoolee loolu ñu ngi koy wax ci suñu alkaati yii alkaati yii di nekk ci suñ kii yi tey mën ngeen a xaritoo ngay nekk seen sëriñ baa ngi nekk seen xarit baa nga nekk seen lépp mais bu bis bu procureur téléphoné na ko demal arrêteel ma sëñ baara wala demal arrêteel ma diw bu ñuy ñëw moom maanaam mbokkoo gi ngeen bokkoo woon moom day réer moom léeg wax la ñuy def ba pare <laughs> donc mbokkoo gi doo ko ñëw da ngay di alkaati du mbokk loolu lañ koy wax léegi nag bu dee nguuri ñoom Macky sàll yi ah am na mbokk ndax man Mansour fay ñoom ñoom Mariama Sarr ay ñoom Aliou Sall ñooñu bokk mbokk giñ ñu buur bi am na lu mu leen jural dégg nga te bul fàtte Lat Joor Demba War ko fal ca Kajoor te mu mujj na fukki at yu mujj yi Lat Joor mujj mujj dund dañoo réeroo kon bu doon buur mbokk la xëy na booba Demba War ak Lat Joor duñ tàqali bu dee nag suñ nguur yi tamit ba tey nag mbokk la ndax da nga gis waaye nag du mbokk parce que ay loi la rek maanaam wërta am mbokk buur waaw parce que ay ay loi lañ la tegal yoo xam ne boo ko dee topp mënoo cee xàmmee ne kii sama rakk la wala kii sama mag la moo tax ma doon ñaawlu ba président Macky Sall bañ tuumaalee Aliou Sall ca pétrole ba mu taxaw daan ne dañoo tuumaal sama rakk baatub sama rakk jooju mu wax loolu république da koy tere parce que da ko waroon a si traité comme en citoyen mi wërta wax ne wërta gis ci moom rakk ak mag kon su boobaa day mën a tooñ réew mi xolub mag bi mooy dem mais xolub président du dem yonente bi sallallahu alayhi wasallam sax léeg-léeg ay atte da daan ñëw dal ci doomam wala dal ci rakkam mu mu appliqué ko comme bu daloon ci ab jàmbur loolu moo tax ñuy wax buur du mbokk dëgg dëgg nag bu dee ci àdduna la ñuy wax maanu nag buur wërta am mbokk moom waaw buur moom wërta am ndey wërta am baay wërta am mag wërta am rakk li mu war a xam mooy dëgg dëgg mooy mbokkam waaw mais buur nag bu amee mbokk rek jalgati tàmbali am waaw ñu ko jëlalee ci cosaan ba wàcceel ñu ko ci suuf euh, leer na suñu bopp Cheikh Bara euh, maa jigéen euh, buñ ko contextualiser ak suñu contexte nii ak boo xoolee li naan buur du mbokk bari na ci sax ñoo xam ne ñi ñuy àndal di ut sax du ñooñ la àndal di gouverner xam na boo ko indee ci context boobu tam mun nga wax ne buur du mbokk waaw euh, parce que ñi fiy ut yëpp ba ñu daam ñun àndaloon mais bu ñu dawee quelque temps rek ñu xëy ànd ak ñeneen wala ñu nekk ci leneen. bu euh, pardon Omar mënul bokk nag parce que euh, tey jii nii yow bu fekkee chaque jour dañuy ànd di nekkandoo ñu lay jàppale ci pour nga jot nguur boo seexasee ba jot nañu meloon démb du mën a yem. ak ni ñu mel tey parce que dañuy wax présidence euh, dafay am protocole boo xamante ne nii euh, soo deful say xarit bu ñu amul xel tuuti rek compréhensif dañuy lay teel a bàyyi. parce que peut-être moment bu nga doon avant ngay jot nguur yaa ngi leen doon dégg euh, heure bu boo leen bëgg a déggee gis bi da doon yomb. mais su xasee ba dugg ci biir euh, euh, pale bi war a gouverner bu boobaa euh, say xaritu démb yi boo deful attention mooy lu ma lay wax léegi day day day day day jafe pour nekk bi mën a dëgër parce que yombatul pour nga am soxla mën a gis président tey tey tey nga gis ko parce que am na loo xamante ne nii moo nekk ci diggante bi buy dox sa diggante ak président bi moo tax parfois loolu muy nekk lu jafe leneen li ma ci seetlu mooy euh, buur mbokk boobu ngeen di wax parfois da ngay gis xam nga président ñi yootu pour bëgg a dem jot ko yépp tey jii nii ñi nga xamante ne nii ñoo di ay candidat ku nekk bëgg nga jot ci nguur gi donc yéen seen i du bokk parce que ni ko Amadou Ba bëggee noonu la ko Bassirou bëggee keneen ak keneen bëggee ko noonu donc foofu noonu mbokk mënatu fa am parce que li ngay yootu moom la yootu ñenn ñi nga xamante ne ni say ministre lañ la yow mi nga xamante ne ni yaa nekk ci gouver di gouverner soo demee ba à un moment donné nga jël benn ministre daal koy folli fa mu nekkoon rek mën na la mere te bu boobaa mbokk ga mën naa tas moo tax souvent li ngeen di wax mënu ma euh, ci li nga xamante ne ni moom moo xaw xewoon démb mais soo gisee situation actuelle bi nga gis ñenn ñi di daje ci campagne bi di xeexante di joorante ay xeer loolu yëpp animosité boobu ngay faral di gis yëpp parce que kenn ku ci nekk ci ñoom rek am nga loo bëgg loo xamante ne ni yow bëgg nga ko boo sañoon sa moroom du ko jot loolooy faral indi yenn yi en tout cas lépp lu mu ci mënti doon rek nañu xam ni ñoom ñooñu noonu ñëpp kenn rek moo ci mën a nekk président kon donc lépp luñ ciy def rek nañ ko def te ci askanu Sénégal parce que ñoom ñoo ci ñoom ñooy dem ci urne yi dem voté ji xool ki leen saf ñu ñu voté ko saa mm-hmm. saa noo déggee buur du mbokk. waaw ah, ma ma jigéen de xanaa dafa wëndeelu moom est-ce que ma jigéen comprendre na non non comprendre na. da ko contextualiser. maanaam ah, buur la ñu wax waxuñu kuy wut bu ah. yow moomu yaay nelaw Omar. yow moo tax kañ ma jigéen di xàndoor. Oh, ba xam nga xam nga mbirum buur moom mbirum buur euh, buur moom niñ daan fonctionner fii ak fëleeg ñëpp a niñ doon fonctionner buur buur yi ñu daan fal. boo seetee sax réew yi nga xamante ni bii jóge nañ ci li nga xamante ni bii moom la ñuy tuddee kii yooyu ba dugg ci démocratie waaw maanaam dootuñu utiliser sax baatu buur maanaam boo seetee suñu réew yi dong ñoo ko dese ñuy fal nit président ñu naan ndawal buur laak buur laak yooyu ba léegi yooyu ñun dañ koo dese quoi mais boo seetee ci tubaab yi daanaka am na loo xamante ni bi dinañ la jox kii it tuddee nañ leen tur yoo xam ne bii ku ci nekk dinga xam sa limite ñun ñii sax man damay jàpp ni bokk nañ ci li tax yenn dérive yi di am c'est parce que nit ñi buur lañ leen jàpp léegi nag buur du mbokk bi nga xamante ni moom la Kocc Barma waxoon xam nga mooy bi muy firi defe naa jubbam yi laak yooyu ci la indi woon ne buur du mbokk ak yooyu te it après démontré na buur bi wan ko ne ko ak li nga xamante ni bi moom laa si xew xam nga dafa am benn film bu ñuy wax l'homme masque vert dafa am ñaari seex yu judd pour wan la lekk ne la buur du mbokk ñaari seex bi ñu juddoo ñoom ñaar yëpp ay ay seex lañ yu góor mais dañoo jël kenn ki ñu ne dañ koy rey comprendre nga c'est parce que kenn rek moo mën a euh, yor li nga xam ni moom la ñuy wax trône bi mais ki ñi ko waroon rey dañ ko def koo nëbbi ñu dem ba kii nga xam ni moom la fal doon ab woyu kii yooyu. Euh, ñu gis ni war nañu ko changer ñu dem pour jëli ji kële pour éliminer kii parce que dem nañ ba xam ni kii moom baaxatut ci ñoom parce que buur du mbokk c'est vrai parce que waroo gis te tamit noonu lañ tëggee sax man pour man noonu buur du mbokk googu noonu lañ tëggee lu waaye yëpp noonu lañ ko tëggee parce que c'est vrai li mu doon expliquer sànq loolu mooy ñëwaat que ni nit ki warta xàmmee mbokkam ak ñi nga xamante ni bii ñooy euh, yëfi waaye bu ñu demee nag ba xàmmee may joxe place bi c'est parce que kii ma koy jox dama bokk ak moom lii wala kii dama bokk ak moom lale eh, loolu jaaduwul parce que moo tax buur du mbokk boobu lu baax la ci li nga xamante ni bii mooy eh, kii parce que mbokk waru ci warutu la am boo xasee ba jiite da nga war a xam dangaa ngaa jiite ñëpp yemale leen bu boobaa liy wax bu dee Omar dafa ñëw indi ay dossier ñu xool Omar mii dossier mi càmbar ko càmbar ni kii ak lii comprendre ko bu boobaa loolooy wax la nga xamante moo la bu dee marché la. ñu xam ni marché bi def nañ appel d'offre ña nga xam ne bi ñooy gën ca mbir ya ñu yëkkati ko jox la ko comprendre nga noonu mooy taxawaay bi nga xamante ni bi noonu la buur war a taxawee mais ñun depuis que ñuy dox ba naga ni li fi xew même bu dee sax dañuy wax ci président Macky Sall mais euh, ci yeneen nguur yi nga xamante ni bi kii parce que déggoon nañ fi tamit jamono yi ab Abdou Diouf amoon na mm, rak frère boo xam ni Maguette Diouf mi ngi woon ci yëf yi comprendre Ablaye bi euh, gis nga ko ak doom ji comprendre nga maanaam ñoom ñëpp. Abdou Diouf. Hmm? Eh, Karim Wade et cetera comprendre nga dangay gis nii doon nañ kii ci yëf yi te loolu nag war a waaw Macky ak boo seetee yooyu mooy yi nga xamante ni bi ak ay Aliou yooyu loolu mooy yi nga xam ne mooy problème bi waaw waaw. kilifaam te Mansour ay kilifa yu mareem léegi nag xam nga moo tax <laughs> moo tax boo seetee nag li ñu wax ne la buur du mbokk pour man loolu sax mooy li nga xamante ni kenn warta wane kii bu ko defee tamit képp koo xam ne doo mën a utiliser say pouvoir naan sama mag laak sama rakk laak sama lii la comprendre nga mbokk googu dañ koo war a dégager. moo tax man vraiment euh, baat boobu mu waxoon baat la boo xamante ni bii moom euh, baatu dëgg la te it euh, war nañ koy gën a dugal ci biir yëf yi. waaw di ko doxee ko parce que loolu mooy li nga xam ne moom la nit ñi di demande macha allah. noonu mën na euh, ma déggee ko ci beneen euh, côté euh, comme par exemple bu def amee ñu war a sanctionner tey jii da ngay nekk président wala dara ki nga bokkal ndey ak baay fóote nga nga bu fekkee ni yow yoon rek ngay doxal nga sanctionné ko bu boobaa boobaa say mbokk wala dara mën nañ la buur du mbokk moo ne yéen a bokk ndey ak baay par exemple douanier jàpp la wala policier jàpp la ñun la buur du mbokk yooyu yëpp dañ ci waaw yooyu yëpp dafa am yoo xamante ni tout le temps dañ koy indiwaat ci kàllaama boobu naan buur du mbokk buur du mbokk man pour man mooy ki war a doxal yoon doxal yoon ñeneen ñi gisee ko neneen waaw parce que man pour man euh, mbokk mënul gën a weesu ki nga bokkal ndey ak bàyyi donc bu fotee nga sanctionné ko foofu noonu kàddu gi dafay daal di am solo bu baax a baax. Hmm. Euh, c'est ne ak ni ko déggee. waaw ah, mu doon ay kàddu yoo xam ne peut-être que ñun suñu ndono ñu bari des fois boo nee kàddu mag ñi dañuy xalaat sëriñ si fekk am am nañ ay maam yoo xam ne tamit dañuy am ay valeurs yoo xam ne ku ci mel ay Kocc Barma bu ma jiimul sax mu ngi tuddoon Birima Fall yaakaar naa loolu mooy turu dëggam ah, léegi kon man sànq bi saa wax dafa ma mooy buur du mbokk kon mun nañ indi ñun suñu baatu bopp kon buñ ko contextualiser ak li ñu ne mooy buur du bokk waaw ah, maanaam fee burdu mbokk lu peut-être mën na comme ni nga ko interprété Cheikh Bara inter mais fee burdu bokk ñun tamit peut-être mën nañ ko dugal ci contexte yi ñuy nekk mooy le fait que ñoom duñ seddoo nguur du nangoo am numéro de bu ñu xamee ni sax diw moo leen nar a doonu dañuy fexe ba du yegg si xam ne ñun tamit suñ contexte yooyu dañ ko ciy gis lu mel noonu maanaam kenn du ko jege ay intérêt rek lay sauvegarde da ngay gis sax ñoom ñuy politique ñu koy wax naan booy ut nguur ci kan. am na ay vice président. am na ay tegal nañ leen ay garde tuddul Sid Lamine Niass tuddul keneen tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paie mooy ki leen di jëmale kanam ut nguur dañ koy ut ci kanaape waaye bis buñ ko jotee benn fauteuil rek lay doon kenn ciy toog peut-être esprit yooyu nag moo ñu tardeel ñun kon euh, ajaratu mu indi woon rek euh, sunu maam Kocc Barma Euh, du ñàkk beneen yoon ñu indiwaat leneen waxtaanee ko. d'accord jërëjëf. amul problème merci beaucoup Omar Bun Khatab Gueye. seen boutique solution ci njiital alaaji Sanjoogu Mbeng ak Sohaybu Jox ngir dëggal ak wéral ni suñu garabi cosaan yi lu wér la li waral seen boutique solution juddu ngir jële fi bépp xeetu caay-caay ci wàllu fajum cosaan ndax nit lekk alalam joxe ay garab yu wérul looloo waral ci diirum ñaari at yu manqué tuuti seen boutique solution di def ay résultats yu ama am solo biir réew mi ak bitim réew ci garab yii ñu leen di bëgg a limal ndoxum siit yi amuñu ci moroom hémorroïde bi nëbb ak bu feeñ góor gu néew kàttan ay garab yu wóor secondaire moytu leen garab yi ndox yi estomac dañ koy faj ba mu wér garabu asthme bu efficace même boo amee woon asma bay piqué crise ñëwal fii ci boutique la solution bépp xale wala mag buy gént di tuur ndox ballottement tànk buy xar ba borom mënta sol ay fermé li jaaxal àddina bi yépp nag muy raay mu sedd bii ne ci boutique la solution lépp luy douleur ci yaram boo koy raay mes lay def am yeneeni mbir ci biir nag moo tax ñu naan ko raay mu sedd plus jaloore ak résultat yi la boutique solution di def réew am na ca France États-Unis d'Amérique Canada itali Espagne ca Gambie ca Angleterre Allemagne ñoo ngi en face wal fajiri ngeen mën a jot boutique la solution ci 78 426 66 77 wala 75 630 50 50 boutique bi xaatimul listixaarul seetul su ngeen bëggee dégg dëgg daal ba boutique la solution juddoo la jaay garab yi bon ak naxaate jeex ñu dem Alaaji kàddu jërëjëf ajaratu Betty Mbow ñuy am mbégte di am kontaante di del seeg yéen ci rubrique bu mag bii nga xamante ne bi moom la ñuy wax pajum cosaan ñi ci ànd ak Cheikh Bara Ndiaye borom def gis di ci waxtaaneek moom lépp loo xam ni jëm na ci wàllu pajum cosaan waaye di ci waxtaanee lu jëm ci actualité ni ko ñeen ñi di waxee wax ni alxamis day jot ngir ñu toog taataan déglu ngir mën a xam li romb ak li ñu ne ak fiñ jëm Cheikh Bara Ndiaye def gis. ñi ngi lay nuyuwaat. aousubillahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala taxlamu nafsan maa uxfiya lahum min qurati ahyunin jasaan bi maa kaanu yaxmalun maa ngi lay nuyu alaaji saan Ndiogou di nuyu ñu ñu toogal ci plateau bi di nuyu ñu ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew di jiital ci nuyoo yi ak siyaar yi Cheikh Mamadul Muntaxa xalifa général de Mouride di ci teg Cheikh soxna soxna Bali Muntaxa di ci teg sëriñ Abdou Samad Mbacke mu Seex Sohaybu di nuyu sëriñ Basiru Mbacke mu sëñ Abdou Khadir di nuyu sëñ Abdou Khadir Ndiaye di xalifa Seex Daaru Asan Ndiaye di nuyu sama sëriñ Seex Muhammadul Moustapha ibnu Seex Sidil Maxtaar ak soxna May bintu Seex Sidil Maxtaar di nuyu bu baax sëriñ Mouda Issa Mbacke mu Seex Sidil Maxtaar sëriñ Abdou Samad mu Seex Sidil Maxtaar di nuyu sëriñ Jiili sëriñ Abdou Latif sëriñ Ahmadou Maxtaar mu Seex Sidil Maxtaar ak sëriñ Ateex ak sëriñ Saliou di nuyu njabootuk sëriñ bi yëpp daal di nuyu mu laay xasis géey bu baax a baax di nuyu sama najaay sëriñ Xaadim Lo Gaydel ak euh, sama nijaay Cheikh ak sama najaay Modou Mbacke Lo waaw di ziar ñëpp. jërëjëf Cheikh Bara macha allah Cheikh Bara euh, tey dama bëgg ñu démarrer ci li nga xamante ni bii ëllëg ak jàmm lañ ko war a càmbar foofu ca Cour suprême. muy recours bi nga xam ni PDS dugal na ko da ngay dégg ci dëkk bi ñuy wax naan waaw recours bi mën naa tax ñu pomm élection yi jamono juñ toll nii xel dalatul nii ak naa recours PDS bi tallal mbalalal mel ni daal am na ñoo xamante ni bi recours bi tiital na le noo jàngatee recours PDS bi ak tamit ndax jàpp nga ni PDS mën na am ndam ci loolu ñuy puusaat ay élection waaw loolu de xëy na liñ jóge ci puus ay élection mm-hmm. moo tax suñ déggaatee lu nu loolu ñu koy jox importance mais jàpp naa ne amul benn importance ci PDS ña ngay jéem a pousse élection yi lan lañ koy poussé ñu ne décret Macky Sall bi dafa dëppawut ak euh, li code électoral wax li ñuy campagne dafa tuuti dañoo wàññi délai campagne bi te yow PDS bu nu yokkoon délai campagne bi yow campagne woo donc jàpp naa ne foofu amoo intérêt pour dem naan da ngay recours loo xam ne sa yoon nekku ci dégg nga loolu benn la njagasi la rek bu yàggul dugal na fii benn plainte ci cour suprême dañ ko ne woon li ngay plainte yow amoo ci intérêt donc PDS amul intérêt ci élection yi moom électeur rek la ci maanaam euh, fi mu ne nii élection yi xamuñu xamuñu luy PDS xamuñu ko donc kon moom bu ci bëggee ñëw di ci dogal wala mu di ci génn mu ciy def loolu mënut a nekk. deuxièmement maanaam recours bi ñoom li dañoo damaa xamul ba xam ñoom damaa defe nañoo ko tay sax waaw wala boog mu jóob décourage ji koy njóobeenam ji xam naa ni jàpp ko mu mu jaxase li muy def ndax koor mais maanaam Macky Sall euh, li mu jël xam nga droit dafa dafa simple mu ngi mel ne cadre maanaam photo yi ñuy wékk ci ne saal yi xam nga mënoo ñëw rek jël ab photo teg ko ci kaw miir bi noonu il faut dafa am foo da daaj pontu doo ko cee wékk droit nag lépp loo def dafa am looy ay ay ay article yooyu cité président Macky Sall boo ko laajoon maanaam élection la 25 février yi jàll bi mu koy jël maanaam fan la lonk ne moom fan la fan la wékku ne moom day jël droit bi dafa lay wax ne la constitution Sénégal moom ma digal bu élection yi deseen tant de jours dañoo war a def benn décret buy bind décret bi da gis mu cité article bi ko ko may amul droit bañ a cité article bii jàll bi mu koy bi muy nommé waat bi muy bi muy cité waat euh, élection le 24 janvier 24 mars bi dafa ne maa ngi jël ci euh, maanaam euh, décision numéro 5 e 2024 bu conseil bu conseil constitutionnel mooy réponse bi ñu ko jox foofa mu ne. Euh, mi ngi ñëw ci maanaam cinquième numéro dégg nga euh, foofu fi la jël lim maanaam loi bi fa la ko jël lan la ko lan la ko lan la ko tiré cinq boobu wax mooy def ko ne code électoral ma parce que dañoo xam nga élection yi dañoo dañoo am lu ñuy wax carence carence mooy dañoo constaté carence mooy dañoo jox Macky Sall délai ne ko defal élection yi ci meilleur délai balaa la deux Macky dem def dialogue bi mu defee dialogue conseil constitutionnel dafa xamut jaloo xamu ko dafa considérer rek nag ne joxoon na Macky Sall temps pour mu organiser élection Macky Sall defu ko loolu lañu wax carence mooy kon maanaam constaté ne na am na lu waroon a am amut kon li fi des ni mu waroon a demee du ni demee moo tax ci tiire cinq ci la ko waxee loolu ne ko nag carence am na kon li fi des mooy jàppal élection te nga ko balaa la deux parce que carence am na léegi Macky Sall comme carence dafa am moom tamit day am droit dootu topp code électoral mais day topp constitution mu moo tax mu jël article boobu andi ko ci ab décision loolu nag cour suprême munu koo dindi. munu koo dindi. conseil ñoom bu ñu demee suba dara luñ ko fa jëlee. amul amul lu luñ fa mën a jëlee élection yi élection yi man yàgg na maa wax Macky Sall mënta foo amee élection. mun mhm. ko. waaw bi ñu ko naan jay naan day fomm day fomm laa leen yàgg a wax Macky Sall mën ta fomm élection yi Sénégal mm-hmm. démocratie dafa complexe d'accord tey jii nii nii nii nii nii mm-hmm. mën ta mari Guy Marius Sagna nekkub député ah. mënu ci dara donte mooy président mm-hmm. loolu ni mu ko tëwe waaw mën ta tee Maham Diallo toog fee di juge fi mu ne nii Macky sàll amul benn juge bu mu mën a dàq loolu ni mu ko tëwee dafa am yoo xam ne ci constitution la nekk dafa të président parce que nekkul ci loxoom dàq election président de la république mënu ko. mënu ko bu ko jéemee fa mu mujj gis nga ko. bu ko fi lonkee da ko fay lonkaat dong. Mhm. donc kon loolu na leer. Mhm. voilà. d' accord ñu jégalu. jërëjëf Cheikh baara macha allah Cheikh Bara euh, dafa mel ni yow dafa am loo xamante ni bii say mbira dafa mel ni tey dafa am loo xam ne da nga ne danga koo bëgg a tontu mu nekk loo xam ne da nga koo indiwaale mhm. muy say bagage lan nga bëgg a tontu ak kan nga bëgg a tontu. waaw ki ma bëgg a tontu. waaw. yàlla seede na ko ne bi may ñëw ci oto bi léegi. waaw dafa am koo xam ne sëtu sëñ Touba la jarul ma koy tudd. Mhm. kilifa la gu mag ca Touba bu ma waxoon ñett ñett ñett ñi ngànk yoonu murit rek mën nga cee boole kenn ki. Mhm. mu yónnee ma audio boo xam ne dafa am benn candidat bu ciy wax. Mhm. mu ne ma ah, affaire monnaie bi moom xawta moom nag ku bëgg Ousmane Sonko la. Mm-hmm. mu ne mu affaire monnaie bi moom xawta xawta am kii bu fekkee dafa nar a jur ay coow ndax gis naa nit ñi di ci jàmbat. Mm-hmm. bu fekkee dafa nar a jur ay coow yooyu est du ngeen ko xoolaat ma reetaan ma defal ko benn audio bu gudd sax waxtaan ak moom di ko leeral monnaie. Mm-hmm. ma pare sama benn di ko ci leeral maanaam li ma ciy tontu ci audio bi rek loolu laa tont li ma ko tontu woon sax moom laay waxaat fii rek. waaw sama mu coupé sama beneen xarit bu nekk Maroc moom tamit intellectuel la vraiment du ma ko tudd sax naa bàyyi noonu. Mhm. moom tamit mu woowaat ma téléphone di ma ci posé ay question ma xam ne day da ciy dute mu ne ma naka lu tax ngay wax li mu ne ma dama gis rek ay nit yu ci wax naan non monnaie bi moom wóorul buñ ko sensé dafa xaw a am risque nangam nangam. Mhm. après nag ma ci la ma yónnee nag audio bii encore. audio bi fayal bi. audio bi ma audio bi ma sëñ ba yónnee. moom itam mu yónneewaat ma ojo bi ma xam ne kon. Mhm. maanaam kenn ki sëñ bi déglu la kiy déglu. Ah. la ma tontu woon ñoom ñaar rek loolu laa bëgg a wax parce que xam naa ne kon dangay mën a natt ne kon askan wu ñu bëree bëri jaaxal na leen. Mhm. mais nag audio bi moom. da ngeen bëgg ngeen déglu ko ba noppi ndax Amadou Ba moo ciy wax. Amadou Ba waaw. su nekk ndax réew mi lay dugal dama jàpp ne rek bi ñu koy waxee dañ ko xamul wala bi ñuy wax dañ ko tayoo. xam nga lan lay tekki. bu amee ci yéen ñii koo xam ne day commerce. su bëggee dem bitim réew. wala ñu yónnee ko marchandise bu di Cheikh ko. bu jógee bitim réew ci benn réew bu ñu ñëwee gisu Europe ñu jël ñaar fukki réew ak lu topp utandoo benn ne ñun ñu am fii juróom-ñetti réew yu am benn monnaie di liggéey ci monnaie wu CEDEAO muy fukki réew ak juróom monnaie kenn du ko foowee la ñu wax baaxool ci réew mi baaxul ci askan wi mooy li ñu njëkk a wane ni tey jii marde taali bu ñu doon joxoon réew mi du ñu def ñetti weer yoo xam ne dugguñu ci pax léegi li Amadou Ba moo ko wax man sax bi mu koy wax maa ko waroon seetaan direct waaye xaw ma woon na sax am na solo ba nit ñi di ko bàyyi xel parce que li ma njëkk a wax rek mooy Amadou Ba moom jàpp naa ne amul xam-xam. Amadou waaw. candidat benn. amul xam-xam amul xam bu amul xam-xam du taxaw di hmm? wax lii. lu ci des mooy. du patriote. du patriote waaw maanaam amul amul benn mbëggeel ci senegal hmm. gis nga li mu wax nii xaw ma nit ñi dégg nañ ko mu déet. Hmm. nee na ñii wax naan dañuy sensé monnaie. li ñuy wax baaxut. mone duñ ko fooyee Mm-hmm. daan ne tubaab yi dañoo jël lu ëpp ñaar fukki réew. def ko benn monnaie. waaw ñun ñu am juróom-ñetti réew xam naa UEMOA lay wax. Mm-hmm. def ko benn moyen benn mone mm-hmm. daan ne réew yi am mone te tolloog ñun. gisuñu kuñ ci ñee. waaye nee na risque bi fi mu nekk mooy. waaw ñu sensé mone ñuy génn fii dem bitim réew di wuti di jëndi dara. di ko indi mooy importe waaw ñooñu bu ñu demee bitim réew dina jafe ci ñoom trop. nee na looloo tax ne baaxut nee na kon ñi ñi wax ne dañuy sensé mone bi mhm. suñu leen bàyyee réew mi mhm. ñetti weer ñu dugal ko ci kàmb waaw baax na Amadou Ba nag jàppoon naa ne man am na kersa mhm. juddu 1961 ba nekk mag mu màggat tey ñu yor franc CFA bii avancé wuñ gone yaa ngi mbëkk géej gi mënuluñ suñ bopp dara mu ñuy continuer waat di ñu woowaat ci continuité Mhm. ci franc CFA pour ñu continuer waat nekk ci. di gën a ndóol di gën a ñàkk di gën a deltu gannaaw man jàppoon naa ne sax ay xalaatam ci réew mi. Mhm. bokk nañ ci sax lu ñuy yeewi ci buum gi ñu tubaab yi yeew. Mhm. waaye moom nee na génn ci loxoy tubaab yi. wóorut. ah nee na. bàyyi franc CFA ndax tubaab bee ñu ko jox. suñ ko bàyyee wóorut. Mm. te nee képp ku ñëw di ñu jéem a génnee ci loxoy tubaab yi ci kàmb la ñu jëmee ci kàmb la ñu jëmee nee na kàmb ku njëkk gi mooy boo demee di importer ji di jëndi dara Chine wala Allemagne di jëndi oto wala nga dem Dubaï wala dara di jëndi marchandise mm. day jafe ci yow voilà léegi kon moom xool leen Amadou Ba xalaatam mooy sénégalais yi moom bu leen jiitee mm. dañuy continuer di dem Chine di jëndi ak Allemagne ak dubaay day yokk sax kon buñ demee foofa nañ fa am jàmm mën a jënd normal ñëw kon réew mi moom amul lu mu loo xam ne danañ fi toog di fi bayee ba dootuñu jéggaani ceeb di defari oto ba ñu jéggaani oto di defar lépp luñ soxla moom xalaatut loolu mi ngi xalaat rek bu ñu dee tukki di ñëw ni muy yombe ci ñun kon moom moom waajut defarum réew mm-hmm. kii amul xam-xam xam nga nag ñun li ma la waxoon léegi rek dem tubaab. waaw ami diplôme ak xam-xam xel muy nàcc amut. Mhm. kii dafa amut xam-xam. Mhm. mën naa nag nekk inspecteur bu impôt xam impôt bi nangam ngay fay fii nga koy fay. fee nga koy jëlee loi bi lii la wax loolu. loolu du xam-xamum réew. Mhm. Amadou Ba mii maa ngi waat ci yàlla ko ko joxum réew du ko doxal. du ko doxal billaahi parce que fi ma ko teg fu wér la. léegi dama bëgg nag ñu bëri déglu ma. waaw. Euh, dama ne gis nga procès Pastef. suñ taxawoon daan ne danañ def lépp luñ dig sénégalais yi. Mhm. te maanaam sensé mone bii politique monétaire bi ñii nii nii ñii. Mhm. bokku ci. waaw liñ ñu dig du dëgg mënuñu ko. liñ ñu dig du dëgg du dëgg. Mhm. Amadou Ba nee na nañ xool réew yi ñu tollool. waaw ñuy yor ñu yor seen mone bopp. lan la leen jariñ. maa ngi wax Amadou Ba mu siteel ma menn réew ci àdduna. menn réew ci àdduna laa wax. mu développé. te yor monnaie jàmbur. amut amut. kon moom bu fekkee gis na réew yor xaalis te développé wuñ waaw waaye gisul réew lim ñuy woo moom amul réew mu ci mas a jaar ba dox mm-hmm. ñàkk dox rek la ñu yéene waaw amul menn réew ci àdduna nag laa la wax mm-hmm. mu doxut mm-hmm. mu dox fekk dafa yor monnaie jàmbur comme comme suñ façon monnaie bi ñu yor waaw mu yor ko ba noppi maanaam am développement amul maa ngi koy wax tamit ne ko réew yii yor xaalis te tolloog ñun waaw du xaalis baa leen tee développé déedéet Mm-hmm. mi ngi mel ne ma ne damay dugg ci oto jëm Touba. waaw xam nga Amadou Ba li muy def lu mu doon. waaw ah day manipuler waaw. nu muy manipuler. dafa ñëw maanaam fekk ma jigéen mii ne day dugg ci oto. Mm. dem Touba. waaw mu ko laa ila sama benn jarbaat dafa dugg ci oto. oto bi këpp xoolal dafa dagg too. Mm-hmm. am na keneen ku dugg ci oto pneu bi dafa toj. Mm-hmm. mu mbëkk bopp ba dafa xar maanaam yooyu la jël tegal ko ko mhm. waaye waxu ko ne ko boo jëlee safar bu mën a dawal te teey dana la yóbbu Touba indi la ci temps bu gàtt boo xam ne boo doxee doo ko man mhm. léegi nag ma jigéen ne ko oto kon wóorut mu a ko di doxal oh. parce que daf ko wax conséquences yi nekk ci oto te nangu ko wax njëriñ li waaw waaw gis nga Mauritanie gii xaalisu boppam la yor avancé wut waaw d' accord mhm. Gambie xaalisu boppam la yor avancé wut Guinée xaalisu boppam la yor avancé wut waaye du xaalis bi moo leen tere avancé avancement ci monnaie monnaie. dafa am lu ko jiitu. muy lan loo xam ne bu amee rek. Mhm. boo amee monnaie amul risque. mooy avant tout. Mhm. da ngay am vision économie. vision économie waaw da ngay am xalaat yu wér. Mhm. du ma ko wax ci tubaab sax xalaat yu wér. vision waaw gis-gis bu sori. ci économie. boo xam ne maanaam da nga naan sama économie. fii laa ko jëlee fii laa bëgg mu jëm fa. loolu première. bi ci des mooy dangay nekk ci état de droit. am dëkk bi day am justice. am droit bu dëgër. ba nit ñi ñeme réew mi mhm. deuxièmement am transparence ci état bi nga xam ne état bi li muy dërëm buy dugg mhm. buy génn lépp lu ñuy def ci kii bi maanaam day leer naññ loolu bu amee boo ko amee mone mi ngi mel ne nga sol sa garab bu teg ci sa mbaxana ni muy oyofe boo ko amut nag boo amut maanaam Gàmbi gii ñàkk état de droit ak ñàkk vision économie ah. moo tax seen xaalis jëriñu leen dara moo leen bloqué Mauritanie hmm. ñàkk état de droit ak hmm. ñàkk vision économie bu baax hmm. moo tax ak transparence ci li ñuy def looloo tax bu ñu amee monnaie tamit mën ta lu bari léegi nag gis nga monnaie xaalis mooy lan mooy lan avant tout gis nga Sa Ndiogou xaalis mooy mooy lii tax essence yomb maanaam nit mën a jël maanaam euh, kii mii dafa bëgg yére yére bii da koo bëgg. Mm-hmm. moom am na lu mu mën a joxe. pour am yére bi. Mm-hmm. kii jaay yére bi tamit dafa am lu mu bëgg am na lu mu mën a jël pour joxe yére bi. Mm-hmm. léegi nag bu doon tane xaalis amut. da ngay bëgg frigo. man ma bëgg euh, man ma bëggu lal. waaw man miy jaay frigo bi lal laa bëgg man man bu ma am bu ma jaayee sama frigo lal laay jënd. man frigo laa bëgg. essence ma yanoo lal ba. di ko indil borom frigo bi. waaw bu ma paree borom frigo bi yenu yanu frigo bi yët ma xam nga loolu dafa metti waaw ñu def ko ci benn pièce. Mhm. garanti ko pour bu ma la joxee rek. jox naa la frigo ci monnaie bi. Mhm. yow nga jox ma. loolu am naa njëgu laal. Mhm. am naa njëgu laal am nga njëgu frigo. loolu mooy tax xaalis jóg. loolu la nan la ñuy amee xaalis. produit la ak service. saa njoogu buñ la joxoon milliard. li nga ci man mooy def sant bi sant santaane ci service. Mhm. wala nga am ci wala nga def ci produit. Mhm. mënoo cee def leneen. Mhm. mooy da bëgg tàngal. waaw produit la dañ la koy jox. da bëgg añ produit la. da bëggum xar produit la. dégg nga lal bi produit lañ la jox maanaam luñ produit dañ lay jox. nga joxe xaalis bi. waaw wala nga dem santaane service mooy da bëgg a watu. kooku waa ji joxu la dara. mais service nga koy dox. waaw mu xoos xoosal sa bopp wala nga dem ci hôtel ba. nga mhm. ne dama fee bëgg a tëdd fukki fan. waaw ñu ne la temps la da fay. mais yóbbu yenn woo otel bi yóbbu. Mhm. joxuñu la produit. Mhm. mais service la. dañ laa defal service. waaw taximaan bi joxu la taxeem. mais da laa defal service da lay jëlee fii yóbbu la géejawaay. service la. noonu la demee kii dafa bëgg a léttu. ñu léttu ko dégg nga raxas ci karawam lañ ko létt mu fay. ñaar yi dong la nit di amee amee amee amee ah, jëlee xaalis. Mm-hmm. ci nga ko mën a amee boo ko amee ci nga koy dépassé. la loolu ngay gis nag. Mm-hmm. maanaam mooy li nga xam ne moo tax xaalis loolu la nit di amee xaalis d'abord. Mm-hmm. léegi nag lan moo dal Sénégal su ma toppee lool sax day gudd lan moo dal Sénégal. waaw mooy dafa am lu ñuy wax euh, maanaam euh, politique monétaire. politique monétaire waaw monétaire monnaie bi. Euh, waaw mooy nit ki xam nga Sénégal lan moo tax nit ñi di jaar ci géej gi ah, nga gis ponkal mu ne léegi nangoo liggéey it amul dara waaw ñun suñ croissance mhm. ñun suñ croissance croissance ni muy yokkoo ñun ni ñuy yokkoo da koo ëpp hmm. yow da am juróomi doom waaw doo di am junni par bis waaw doom ju nekk ñu ne la maanaam mille francs lay consommé ci bis bi Mhm. nga dem li wut liggéey ñu lay fay cinq mille francs kon doom ju nekk day am cinq day mille francs par jour. waaw ñu toogaat fukki at. Mhm. nga amaat yeneen. juróomi doom dolli ci muy fukk. muy fukki doom am téeméer. <coughs> léegi yow. Mhm. déedéet ngay am six mille francs. Ah, ah, par exemple kon xam nga sa six mille bi. junni bi nga doon am daaw. yokk na. waaye dangaa wàññi ko. waaw da ngaa parce que da nga am juróomi doom. te yokk nga fi 1000 francs mais 1000 francs boobu nga yokk dug yokk Sénégal nag li leen dal mooy demal calcul ko 1960 ak léegi PIB mhm. euh, seen seen seen seen seen euh, croissance mhm. ni muy yokkoo askan wi ni ñuy yokkoo du ko ëpp fuuf ko looloo tax li fi nekk ci alal daf ñoo doyut doyut mhm. dégg nga loolu mooy suñ problème kenn ku nekk mi ngi mel ne nga dem jël fekk ay nit yu xiif nga jël benn bitéelum ndox jox leen ko wala ñetti bitéeli ndox jox leen ko fekk fukki nit yu mar lañ ñu mhm. koy njëkkantee kenn du ko kenn du ko bàyyee sa morom loolu moo ñu dal ci wàllu économie suñ yokk ni ñuy yokkoo ñun ni ñuy judde juróo ji yokk di yokk di mhm. dem mhm. ak suñ économie dafa tolloowul léegi nag loolu kon da naan ma lu état bi di jariñ état bi ci boppam mënu koo yokk mënu koo wàññi xam nga lu tax parce que amuñu suñ monnaie bopp monnaie bopp bi li muy jariñ mooy maanaam da ngay am banque centrale. banque sa banque centrale. Mhm. bii ñu am nii. waaw fii la nekk mooy siège bi de. waaw waaye moomuñu ko France ko garanti. Mhm. léegi ñun li dal mooy xam nga dafa am luy am. mooy banque centrale lan lay jariñ d'abord. Mhm. lay leeral nit ki banque centrale day toog mën a xam ne ah dëkk bi de xaalis bi dafa bari. waaw bu xaalis bi baree lan lay jur day seeral njëg yi. demande bi day ëpp offre bi. Mhm. par exemple tey boo jëloon maanaam maanaam dix millions Sénégal. nga may leen ku ne cent millions tey. suba suba suba oto day seer. parce que ñëpp dañuy dem jëndi oto. Mhm. comprendre nga hôtel yi day seer parce que ñëpp ay bëgg a dugg ci hôtel yi. Mhm. comprendre léegi lo loolu noonu pour bañ oto seer a seer a seer bañ ndax ñëpp nañ koy soxla. loolu day dal ab dëkk. waaw mooy léegi da ngay jékki-jékki gis oto seer wala njëkk-jékki ceeb seer parce que ñi koy wut. dafa ëpp dafa bari. léegi nag bu dee da nga am banque centrale bu gisee ne xaalis bi dafa bari ci mbedd mi. waaw day yokk njëg yi. Mm-hmm. day mën a woowaat xaalis bi ci moom. waaw ñëw. Mm-hmm. su gisee ne dem na ba dëkk bi xaalis bi oto yaa ngi daanu. parce que yow boo tegee sa parking kenn waxaalewut boo amee ñaari client rek da nga jaayee lu baaxut sax parce que dangay ngay bëgg a mm-hmm. daanu. buñ gisee nag njëg yi ñu ngi daanu. day dugalaat xaalis bi ci penc bi léegi nag loolu nag tant que amoo ab banque. Mhm. centralu bopp mënuma ko nan la koy defee mooy banque yi ngay gis mhm. mooy banque commerciale maanaam banque classique yi ay banque Ecobank CEDEA yooyu yooyu ay banque cent kii lañ mhm, ñoom ay client wu banque centrale lañ moom moo leen di contrôler moo leen garanti mais ci moom la ñuy dem jël ñëw di tas ci askan wi waaw léegi problème bi mooy askan wi li leen dal oh. Sénégal mooy ñun dañoo amul accès ci xaalis bi amuñu ci amuñu ci accès. Mhm. tey ji ñun ñi ñëpp mën ngaa wax sénégalais yu bari ma mhm. amuñ accès ci xaalis. Mhm. Sa Ndiogou tey ku la joxoon un milliard. di nga jënd nangami oto ndax solution boo demoon solution ñi da nga ko lebal un milliard. di nga jënd ay oto. di nga jëlaat ay employé di nga jëndaat ay caméra di nga toj fii def fee ay seetu def fee nangam. am loolu ngay def lu noonu. loolu mooy créer emploi. waaw moo koy tey bu fekkonte ne bépp nit bu am ambition. Mhm. am xam-xam am ngëm-ngëm di nangoo liggéey rek. Mhm. ñu lebal la xaalis. Mhm. ci lu yomb. dëkk bi ñëpp ay liggéey. parce que saa njóogu yow rek. dangay ngay soxla ay chauffeur da mm-hmm. ngay soxla ñeneen i nit mm-hmm. comprendre nga mm-hmm. ñooñu ngay soxla noonu ci askan wi bu ko ñëpp bu ko ñu ba eh, acteur économie yëpp defandoo rek nit ñi dañuy liggéey am liggéey kenn dootu tëdd c'est léegi nag acteur économie yooyu comme yow ni nga yoree solution nii banque bi xalaatu laa jox un milliard xalaatu tijji luñ la sax yoon woo koy amee yow da ngay yem ci li nga man rek <laughs> léegi booy yi nga war a liggéeyloo ñu ngi ci mbedd mi parce que banque bi joxu la tax nit ñi duñ liggéey léegi nag banque bi nan lay mën a woowee moo woowee xaalis bi su ko bëggee woo mooy dafay daal ne ah xaalis bi dafa bari ñu ne waaw mu daal ne banque yi su ngeen ma dénkee moom banque centrale du wax ak nit waaw banque yi rek lay waxal su ngeen ma dénkee un million mhm. dinaa leen ci tegal huit pour cent mhm. xam kon banque yi dañuy daw njëkkante jël li ñu fa yor. duñ ko jox nit ñi. di ko leble mais dañu dem dénk ko banque centrale. banque yi di indi di indi di indi di indi. denc di denc di denc day xam nga ba yi day wàññeeku. parce que circulé ko su demee ba wàññi ko ba wàññi mm-hmm. day wax daan ne léegi man ku ma dénk. Mm-hmm. dootuma la ci jox benn dërëm. waaw daan na nag léegi ku lebal nit ñi. Mhm. may naa la yéen sama loi sensé naa ko may naa ku ku ku ngeen lebal million. Mhm. maanaam teg leen ci deux pour cent wàññi leen li ngeen doon leble mhm. wàññi leen ko bi léegi taux bi léegi luy nit ñi def mooy dañuy daw jël leb si. banque bi fii ëmma bu fi dénkaanee xaalisam amatu fi lu ñu koy fi fay. kon da koy jox nit ki dem dàq ci benn 2 pour cent moo ko gënal. Mhm. muy jël siwaat moneem di joxe di jël moneem di joxe. Mhm. léegi yow boo ci jotee rek sànni ci marché bi kii bu jotee rek sànni ci marché bi. Mhm. day dem ba marché bi fee saata ci béyee. banque bi récupéré waat. waaw léegi nag lii nag la ñu Amadou Ba bëgg a xañ. Ah. ngay contrôler sa bopp yëpp. maanaam. Mhm. dama laa wax ne la monnaie boo koy am. ñeent mooy taxaw pour mu mhm. nga mën a am monnaie. Mhm. mooy état de droit. vision économie. transparence ak banque centrale bu nangoo jébbalu. ci politique bi nga teg. pour suqali dëkk bi. ñun nag même bu ñu amoon état de droit. même bu ñu amoon transparence. même bu ñu amoon vision économie. banque centrale bu jébbalu ci xalaat yooyu. comprendre lañ yorut. d'accord maanaam jomaay fay tey bu ñëwoon ne danaa def loi. ci dëkk bi bañ na waaw mm. mu ne danaa def ba dinaa def transparence ci li may doxal ñu ne ko waaw mm. mu ne am na vision économie mi ngi nii lii mooy procès bi ñu ne waaw mm. mais banque centrale bi bu nanguwut a jébbalu ci idée yooyu jomaay teg ci pénc mi du dox du dox comprendre nga lan moo tax nanguwu cee jébbalu mm-hmm. mooy ñun suñu xaalis waaw ñoo koy wooyee CFA rek mais euro la euro la 1960 ba léegi saa njóogu mas ngaa gis 650 ñu ne la boo amee 650 rek am nga 1 euro am nga 1 euro waaw 650 mm-hmm. boo am waaw am nga un euro. Mm-hmm. mosoo koo gis mu sensé. man naa wuuteeg xaalisu Gambie wuuteeg dalasi wuuteeg pound wuuteeg lépp wuuteeg dollar mais du mm-hmm. wuuteeg euro. du wuuteeg euro parce que ñun. Mm-hmm. dañoo dem ci ño tubaab yi ne leen léegi yéen ñuy xoolal. waaw maanaam su ñuy yokk xaalis beeg suñ koy wàññi. yéen yéen a koy def léegi nag état bi day gis ne par exemple. waaw oto mi ngi daanu. parce que nit ñi amatuñ luñ jëndee oto. xam nga daa war a dem kon ca banque centrale ba wàññi ko. waaw mënu ko. Mm. day toog di seetaan. mënu koo contrôler mënu ko. Mm. day toog di xool. waaw day gis ne xaalis bi kat bari na. nit ñi kat léegi koo gis mi ngi wutub oto oto oto amatul ci dëkk bi. mënu mm-hmm. ci dara. Mm-hmm. maam day toog ne nii di leen seetaan. Mm-hmm. parce que moom yorul mi ngi mel ne nga dugg ci sareet. waaw war a yor laab gi di dawal. président de la république ba war a yor laab gi. bu demee ba séen ci bëtam lu ko doyut day poñal fas wi. ba mu leer mu bàyyi dàq. léegi nag ñun président bi ñu yor nag daa jël laab jox France. léeg-léeg ñu gis dansé bu mag. xam nga da war a poñe fas yu maanaam balaa dem France fekk mbëkk nañ li ñuy bëkk. Ah. musiba ba dal nañu. looloo ñu léeg-léeg ñu war a daw. Mhm. France poñe. ñu naan daq leen leeral na dàq leen mu ne du ko yëg. <laughs> ñun loolu lii moo ñu dal ci wàllu wàllu monnaie. ne <laughs> la comprendre li ma wax. dëgg la léegi nag. képp ku taxaw. waaw naan la buñ dem ci mu nañ nañ yem ci. franc CFA bii. Mhm. kooku pour France la. bëggul réew mi te billaay Amadou Ba bu ko waxee. Mhm. man jàpp naan ne sa xam-xamu ëpp na lii xam nga lan la. Mhm. tey. waaw bi ñu sampee Sénégal ba léegi. ñun politique gu industrialisation lañ amut. lañ amut mooy duñ transformé dara fi senegal gerte gi transformé mu dem lépp. zircon ba day dem. pétrole ba day or ba day dem. léegi nag bu fekkente ne saa boo jëlee dara. nga war koo transformer ci dëkk bi. Mm-hmm. yóbbu génnee ko dëkk bi rek mooy xañ nga téeméeri ndaw seen xëy. Mm-hmm. parce que soo ko doon transformer fii rek. di nga soxlay nit. dëgg la ñàkk gi nga ko fi ñàkk a transformé. Mm-hmm. mooy yaa ngi jël liggéeyum ndaw ñi xëyum ndaw ñi. di ko yóbbu di ko yóbbu léegi nag loolu pour pour ñu ñu sawar ci ñun. waaw franc CFA bi la. parce que tey entreprise bi jógee France di ñëw fii. waaw du dem Gambie xam nga lu tax. Mm. Gambie xaalis bi dafa stable ci ci CFA. ci ci euro. man ngaa am tey six cent cinquante ci dalasi. mu nekk un euro. suba suba suba ñoom mën nañoo nekk ci li wàññi seeni i béyee wala ñu koy yokk. waaw dootu tolloog béyee France bi. waaw léegi nag fii nag dañ ñu koo nattal ba dañ koo nattal entreprise français yi ba mu tolloog ni ñu ko bëggee. Hmm. ñu yeew ko fa xam nga kañ lañ ko fa yeewoon 60 ba léegi. 60 hmm. ba léegi entre maanaam entrepreneur entrepreneur. entreprise su français bi. moom xam na ne saa bu amee 1 euro rek. Hmm. am na am na 650 fii. du ci yokk du ci wàññi ko looloo tax ñoom dañuy daw ñëw fii. waaw dégg nga Mhm. léegi nag ñoom lañ jox garantie ci xaalis bi. pour ñoom li ñuy def mu stable ba bu ñu demee fële. ñoom lañ duñ ci yàqule. Mhm. ñun nag ñu ngi ciy dee ñu ngi ciy dund kooku yoonu France nekku ci. Mhm. dégg nga kon nag ñi leen di wax naan ay monnaie bi. kenn nag du falu tey. waaw daal ne damay damay defar monnaie tey. déedéet déedéet. monnaie dafay aju ci. maanaam da ngay def vision économie. def état de droit parce que tey boo defut état de droit. man mën na maa defar man na maa dem nga jël ma man may defar may defar béy mhm. <laughs> ma xam ni ñu koy defaree. ma dem defar sama faux béy yu ñëw toog. waaw état de droit il faut mu am. Mhm. daloon suñ paree suñ paree ñu doog a am transparence ci état bi nga xam ne état bi sàccatut. Mhm. suñ paree rek bu ñu amee monnaie. billaay réew mi day baax. d'accord dégg nga léegi nag. foofu dafa am lu sew lu économiste yi di jaawale. mooy économie bu stable. Mm-hmm. monnaie bu baaxut. ak monnaie bu baaxut. waaw dafa am économie bu baax. Mm-hmm. fekk monnaie bi baaxut. waaw waaye économie bi moom mi ngi baax. mi baax léegi nag am économie bu bon. am monnaie bu baax. économie bu bon monnaie bu baax. mooy senegal mm-hmm. waaw Sénégal économie bi dara baaxu ci. waaw PIB bi. croissance bi demal xool. PIB bi daanaka dawut. dawut PIB mooy. maanaam li fi nekk ci demande li fi nekk ci ci ci ci euh, produit ak li fi nekk ci service. Mm. ñaata hôtel laa am man Sénégal. Mm. ñaata taxi laay dawal. Mm. ñaata bu alimentation. ñaata ñooy lëtt ñaata loolu. boo ko boolee. loolu mooy buy yokk ak di wàññi ko loolu croissance loolu nag boo ko jëlee ba natt ko. Mm-hmm. maanaam daanaka day dox dox bu gàtt. Mm-hmm. te ñun ñi ngi takki jabar ñi ngi jur ñi ngi tabax ñi ngi dem. léegi nag tuuti gim tuuti nag loolu moo lor askan wi. Mm. léegi nag nan ngeen mën a comprendre koo xam ne nee na première ministre la woon directeur la nangam la. ñaar rek moo am. Mm-hmm. mooy entreprise français yi nga xam ne ñoom su monnaie bi sensé woo man naa am sax du risque ci ñoom waaye mën naa am muy risque. Mm. ñoo ko yónni ne ko bu mu fi amee. wa ilaa rek mu ñàkk xam-xam bañ réew mi. d'accord waaye Amadou Ba moom lii mu wax moom. Mm. képp ku taxaw wateel ko. maanaam doo pat bëggoo réew mi te bu subaa lu dal say sët yow a. d'accord. jërëjëf Cheikh Bara rek macha allah li nga expliqué ci monnaie bi leer na sànq bi nga nee ma da bëgg ñu waxtaan ci monnaie bi dama ne la Cheikh baar loolu set trop technique waaye bi nga ñëwee faram fàccee nga ko lal ko ci basang bi ba ka nga xam ni moo nekk ca garage ba ak ka nga xam ni moo nekk fële ca kii pàkk ba ñëpp mën nañoo comprendre li nga xam ni moom la wax li nga wax nii leer na ba nga jëlee ba dugal ci ngalaabu fas gi wane ni bu yoon wi leere ak bu yoon wee kii wee nga daal di loolu Cheikh Bara macha allah foofu daan na de Cheikh Bara ñu tëjee ko li nga xam ne mooy sa Cheikh Bara yéen seen campagne bi parce que temps bi nag mi ngi jeex rapidement nag seen campagne bi Cheikh Bara yéen euh, gis nañ leen démb ngeen dem Mbour Cheikh Bara yéen candidat yi gars yi dinañ leen mere de. yéen gaa yi daay yéen a leen gën a lool sax nu mu demee noonu. yéen a gën a taxaw ka yeneen gaa yi quoi yeneen gaa yi ñoom am nañ jotu sax di tànn ñu ngi wë yéen a ngi dem mais ñoom ñu ngi tàntanteeg kii ñu bari nee nañ Amadou Ba président da koo woolu ah président woowu ko de. woowu ko la mukk ah. Amadou Ba ma Amadou Ba mënut a jaar fenn ba Macky Sall jàppale ko. Hmm. waaw dañoo am problème personnel. kooku maa la ko wax waaw yi tant que gisoo Marème Faye. waaw ñëw taxaw ci ginnaaw Amadou Ba. waaw di ko tàccu. waaw Macky jàppaleegu ko. jàppaleegu ko waaw ba coow li daree bareeg léegi nag gisagoo ci Marème moom. Mm-hmm. waaw loolu nag maa la ci jox bopp benn morceau boobu. parce que mm-hmm. Amadou Aliou Sall la ko dar ne dar man ko loolu nag mbir la ca biir sëb la la ko bënn nga ca biir du ma ci wax nag. waaye am na lu ma ci xam lu baree <laughs> baree bari. Mm-hmm. léegi Amadou daa dem. waaw woote kenn eh, géejawaay la woon xaw ma mooy foofu affaire boobu mu doon woote. kenn ñëwul. waaw boobu noonu ñu ngi toj akapes bi mu xëyee fii laa la koy wax te du ko weddi moom. Mhm. bi muy seetaan ak apes mhm. la téléphoné ñoom yaay puy ak galoba ca Mbàkke mhm. loolooy loolooy gañ tàccoom moom ne leen kat suba damay ñëw Mbàkke parce que booba da doon def réponse ak apes léegi nag boo man sama gaa yi nekk APR foofu dañoo kaas bay bëgg a dee parce que dañu affaire bi da leen a bett mais dafa bëggoon bu xëyee duy mbooloo Mbàkke mu toll ne ak apes xam nga yaay puy mooy soxna sëñ Abdou Karim dafa am doole foofu galoba Mbàkke moo fay meer ñoom ñaar ñooy gañ ci mitinam yi nga xam ne moom mooy mitin capitalam la. léegi mu dem fa affaire ba yaraax. mu daw dugg Tiwaawoon Jóob si xam nga fu mu ko dugal baasi ngénte la baas baasi ngénte. barke yàlla. Eh. ay baasi ngénte la dugal Amadou Ba. baasi ngénte laa la wax kay. Mm-hmm. ateg fa ay maire yu niróole. waaw taxaw naa ko danaa la gañeel wit département yi <laughs> département yi Ba xam ne lii moom. <laughs> waaw donc maanaam bu moytuwul Amadou Ba yaraax la nar a tudd. waaw <laughs> Amadou Ba yaraax Ba yaraax ba Amadou yaraax ba. Amadou yaraax ba. la nar a tudd mu ne xaama ma dem ñaari ndimbal ci président. Uh-huh. moom moo daw dikk fi naan ko waaw boo ci mënoon a jàpp ak lu ma xamut gis nga président président waxu ko lu leer. gis nga Louga. Hmm. Louga. Abbas. baas waaw la doon duggati ca baas ba toog mel na kuy kuy dayira dégg <laughs> moom Moustapha Diop moom doon fontoo sax mujj na naan ko Moustapha il faut nga ñëw jàpp ci ndax boo ci jàpp Louga du baax ah. ndar moom Amadou du la wan ndar moom. Ah, ndar moom bu dee téeméeri sées la tegoon. Ah. maanaam quatre vingt sées yi kenn toogu ci. kenn toogu ci dañoo mujj tegalewaat sées yi na la ñëw taxaw wër ko. Hmm. dégg nga. loolooy problème bi. Hmm. ay nit ci boppam la gaañu amul. amuñu ko waaw a ngi nii. waaw préfet bi amut ci. amul préfet amul dara. waaw waaw da ngay teg say rajo rek taal muy tàkk. Mhm. léegi la gars yi lu tee ñu dem fa nag. Ah. man de Aline Mamadou ja dong laa gis muy drainer mbooloo. waaw ci campagne bi. Aline Mamadou képp mhm. yeneen gars yëpp. maam dañuy dem ci néeg làqatu fa. Mhm. ñoom li ñuy def da dañuy sonal seen bopp mais meloon nañoo def seeni i jox RTS pare. vocal <laughs> waaw. léegi nag loolu mooy affaire bi. waaw léegi nag man. waaw ak sama équipe boobu. li ñu dugal ci campagne bi man am na geneen wet gu ma gën a mane mooy toog ci plateau ak di def samay wird ak yooyu. Mm-hmm. samay sarax. Mm-hmm. mais dañoo jàpp Ousmane sonk waaw tëj kaso. waaw jàpp Diomaye fay tëj kaso ba noppi ne ay ca pip dem leen. Mm-hmm. loolu nag fu leer la ko Macky Sall teg. mooy Afrique de l'Ouest gii ak àdduna bi. parti bu ma mas a gis ñu ne ciix leader ba. parti bi moom day taxaw ba leader bi génn. waaw Pastef nag lañ jàpp seenug leader. waaw wax dëgg yàlla. lii am ci mbedd mi man mi ci nekk man xam naa ne bu fi Sonko nekkoon ci biti du am noonu du am. Hmm. waaw parce que koo karawaanu sonk mooy campagne kon. waaw nag ñépp dañoo def seen bopp bi ne buñ toogee du baax. Hmm. moo tax ma wax ne sonk moom gaa yi ñoo ne tëdd muy dox. waaw sonk moom moo tëdd muy dox moom. Hmm. waaw. waaw <laughs> gaa yi nee nañ toog muy dox. jomaay moo toog muy dox. jomaay toog muy dox toog muy dox sonk tëdd muy dox. léegi nag suñ karawaan tey. waaw dinañ ko def parce que ñun liñ ci boole rek mooy dañoo jàpp suñuy leader tëj leen ñu dañu wàcc terrain bi. temps bi jeex na waaw suñ moyen bopp lañu yor. Euh, ak ay nit ñoo xam ne politique guñ. seen yoon ci Sonko mais comme dañoo war a sensé réew mi. Mm-hmm. il faut ñu génn ñu dajale suñuy dërëm dërëm. pour suñuy oto. Mm-hmm. teg ko ci. macha allah voilà temps mayuñu ko. man mayuñu ko waaye nag bëgg gi. Mm-hmm. ak volonté bi moo ñu ci yóbbu. tey incha allahu danañ jaar maris. ay euh, Seras ay Pikine Géejawaay danaa ñëw sa sa kër dégg nga fa laay ndogo. kër <laughs> kër kat kër yow yow yow sama kër billaay dinaa laaj sa kër oh, daras na la oh, génneel ndogu sabar doo <laughs> lañ nag cent personnes lañ nag nga ko waaj wër kanji déedéet dinaa ko wër kanji nga cëkk dara damay dugg naa borom yaa cëkk ji rek <laughs> ba tey noonu la ñuy def suba incha allah maa ngi wax tamit dinañ def salon d'honneur hmm. wal fajiri waaw salon allah dinañ ko def ah. émission boobu nag émission bu am importance la ci ban dañoo war a dem ci àll bi ah. waaw fi nga xam ne caravane de la caravane bu mag bi mënu hmm. faa dem hmm. caravane de la moo fay dem suñ caravane bi mooy maa ko tuddee caravane de la peuple de waaw déedéet caravane de la peuple la lu tax benn nit nekk caravane de la liberté ba pare bi ngeen bëgg ko sensé naan caravane di di xaw ma lan caravane de la peuple laa ko tuddee fi mu mënta dem la ñuy dem mais comme damaa am émission euh, suba salon d'honneur dañ ko bëgg a def ba pare mhm. suñ paree nag dañuy génn ndakaaru moom waaw dëkk yu xonq yi rek mhm. ba ba élection yi ñu doog a ñëwaat ndakaar léegi nag mais li ñu taxoon a def karawaan bi nag vraiment mooy dem ndar ak gét ndar loolu dong moo nekkoon suñu yitte mhm. oto yi nag dañ cee teel a jot poos yi dara nekk ci ñu ne nañ tàmbalee Ndakaaru hmm. léegi nag samedi ak dimaas hmm. kooku ñu ngi ndar d'accord dimanche nañu waa ndar xaar hmm. dëkku biti mbuub bu ñu demee moom ndar moom mooy suñ mooy suñ sànni tàj macha allah suñ paree nag dëkk yu xonq yi lañ jëm ba élection yi jot ñu ñëw dinañ jaar Mbàkke dinañ jaar cees dinañ jaar fépp nañ ñu xaar caravane de la peuple Cheikh Bara temps bi jeex na <laughs> Cheikh Chebar léegi nag euh, programme bi naka lay demee léegi. programme bi mooy kër ga ma ngay dox. Hmm. ñiy faju bu ñu ñëwee danañ fa fekk équipe ba yi faj. Hmm. man damay teel a jóg fi ne saa jóg li may nelaw léegi ma tutul deux heures de temps daanaka. deux damay teel a jóg. Hmm. gan ña fa nekk ñëpp ñu lijjanti leen ba ñu dem. 14 heures jot. ñu doog a dem ca plateau ba. ñu doo a dem ca kii ba ca ca ca quartier général. tàmbali fa. léegi nag mooy ajjuma suba. ñu ngi tëngeej. c'est sëñ Mansour. terminus Euh, euh, hémorroïde seere ballottement biir buy def ngelaw booy dem toilette air rek di génn mm. boo lekkee mu ne kekk du yeex a rees mm. dégg nga wala nga xiif ba mu yàgg dootoo xiif wala mu mel ne luy delloo sa awra wala muy metti say articulation wala ngay géex di am mauvaise haleine mm. ak di metti sa bopp day lëndami bët mm-hmm. yooyu ak tëdd ak jigéen quinze jours doo ko soxla yooyu yëpp boo ñëwee suba ajjuma ji danañ ko faj samedi danañ ko de faj foofa ci tëngéej dimanche danañ ko faj foofu euh, ak sangat ubbiku bayre muslaay kaaraange ak sangatul njare ak sunguf yu baax yoo xam ne laal moom muy dox la euh, altine la ñuy faj rab mm-hmm. dégg nga altine ci la faj rab ci bis bi benn bis dañ koy faj na nga woote wax ne damaa bëgg a faju rab rek danañ la wax condition yi mardi mercredi jeudi ñu ngi asalem de ginnaaw école ma jëy sàll am nañ boutique mbuur euh, ci ginnaaw osan bi abotaal moo fa nekk am nañ boutique Thiès kër gi jàkkaarloo kër Mbay Juuf am nañ boutique. Euh, Casamance. am nañ ko Touba. wetu kër sëñ Bass Abdou Khadir. maa ngi woo bépp patriote tey. ndogu kër saa Ndiogu tey ca Géeja <laughs> wax. bàyyi li ngay caaxaan macha allah di fàttali numéro téléphone Cheikh Bara bàyyi ma joxe numéro. mais xaaral numéro téléphone Cheikh Bara macha allah. waaw di 62. 77 610 81 80 daan

Cheikh Cheikh Bara nga ni. nga ni Patriote Guédiawaye maa ngi nuyu buntu kër Sa Ndiogou bala ndogo la nekk. ayca ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la wax ni nuyul ñu kat yi ak sëñ Sidi mu ndaw bu baax a baax njaboot ga di ziar Baye Ali merci beaucoup di nuyu également euh, Cheikh euh, Touré yéen ñëpp ñu ngi leen nuyu Cheikh naa maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar di wax ni rek <laughs> abo ma nga mooy gérant ba nekk ca Mbour ayca mi ngi noonu kon nag euh, victime du net topp leen ñu foofu fële ca solution info TV ci télévision Walfadjri ñu jox leen daje lundi incha allah. seen patron tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paie mooy ki leen di jëmale kanam dañu am fayda dañu am fayda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 patron tuddul Sidy Lamine ñas tuddul keneen tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paie mooy ki leen di jëmale kanam dañu am fayda dañu am fayda